ci ordre Mansour fay lay wéyee jox ko ni ko téyel signature bi e li ñuy wax ci loolu mooy li gën a garaaw mooy xaalis bi ci contrat de crédit bi dañ cee wax ne l'agent assignataire ki war a yore xaalisu leb bi ñu leb du kenn ku may trésor publiku Sénégal donc il faut ñu déglu wax ji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 Mmh. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Euh, c'est Jérôme John de Désafir. Jérôme John. Oui. J'avais deux questions. La première, vous avez évoqué les 98 milliards qui ont été versés dans un compte qui, selon vos informations, est sous la d'un proche de monsieur Mansour Faye. J'ai pas dit ça. Qui est j'ai pas dit ça c'est-à-dire le compte est géré d'une façon par un proche de Mansour Faye. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas non plus ce que j'ai dit. Hmm? donc donc donc d'accord ma leeralaat rek. waaw nga leeralaat. Jérôme ce que j'ai dit est très clair dañu leb xaalisu Sénégal indi ko ci réew mi ci contrat leb bi mooy le contrat de crédit ñu ne xaalis bi. le signataire assignataire ça doit être le trésor public xaalis bi ñëw Sénégal ñu dugal ko ci compte ASGC UK wax naa la ne mooy ñi lijjanti toppatoo leb gi ci gré à gré ñu jox ko marché bi wëlbatiku jël xaalis bi dénk ko ko ne ko gars yi fay leen xaalis boobu ñu dugal ko ci benn ñu ñu ne xaalis bi dañ koy lebal banque bi en DAT dépôt à terme xam nga yow sénégalais bi bu la neexee boo amee deux cent mille ci sa compte nga ne banque bi lebal naa la deux cent mille yi ci diiru at waaye deux cent yi weer bu nekk da nga may jox cinq mille francs mm-hmm. ñu ubbi compte boo xam ne ci turu état Sénégal intérêt yi ci compte boobu lañu koy dugal te compte bi ministère des finances yëgu ko xamu ko donc la cay rot ci intérêt ca compte beneen boobu la ñu ko dugal ma ne la compte beneen boobu intérêt yi di rot poulain wu Mansour fay moo koy signé mooy génn xaalis foofu leer na. leer na macha léegi ci compte boobu li ñu euh, gën ko leeral mooy. nan la Sénégalais yi war a mën a def ba xam bi ñu lebee xaalis boobu ba léegi ñaata moo ci jara ma ñaata moo ci jot a nekk ca koppar ndax 98 milliards moom intérêt war naa bari macha allah ñaareel bi mooy euh, àddu nga ci mbir moo xamante ni jur na coow mu ne xaalis bu tàkku te Mansour Faye c'est pas la première fois tamit ñuy dégg ay turam ci euh, wàllum koppar rawatina ci Sénégal ndax yow ci sa bopp euh, ci ak li fi jot a xew yëpp Mansour Faye yóbbu la ci kanamu yoon. xam nga man yóbbuma ci yoon day doon li gën a sedd ci li ma mën a dal ma Macky Sall parce que dañu nekk nguur gu ñàkk fayda goo xam ne loo xalaat rek sañ nañ ko dama lay wax ci seen ñàkk fayda gis nga fan yëli ci ginnaaw UNACOIS UNACOIS dañ ma bind lettre décerné ma prix politique res meilleure politique responsabilité sociétale ma woo leen saafonteeg ñoom remercier leen ndekete gars yi ma war a jox prix bi metti na leen ñu woo waa UNACOIS ne leen waa jii ngeen war a jox prix bi ñun mënuñu ñëw di présider ngeen koy jox prix alors que le waa ji c'est un opposant waaw man lu baax li may def ci senegal man dama xaar Macky Sall pour def lu baax man mësuma xaar Macky Sall pour def lu baax dama juddu ci kër goo xam ne bu ñu yeewoo mën nañoo bañ a ndékki bu ñu toggee añ dañ ciy tibb reer yàlla bu ma jimbalee ma am yokkute gu ma gis mais faw ma bàyyi xel ñi ci sama ginnaaw loolu rek la foofu rek laa toll xaaruma leen xaaruma leen parce que le lendemain ca dimanche ja ku ne gis na ma ma dem Koungheul ak mbir ki parce que jàpp naa ne robinet bu xellee ndox waree fam la jarta félicité loolu laa jàpp su ma digganteeg euh, jaamu yàlla yi intérêt yi ci compte boobu mais Jérôme posé nga question bi ni mu la taraw de l'esprit metti la ba nga laaj ma ko man mais looloo ma metti man ba may woo micro yi takk rajo moo tax ma ne man werantew ma nañ ma wax ani xaalis bi je suis un sénégalais je demande à Mansour Faye et service services diir xaalis bi fu mu nekk man waxuma ndax jox nañu diw marché marché bi jaar na yoon waxuma loolu dama ne ana quatre-vingt-dix-huit milliards yi te boo ngeen xoolee ci suma compte Facebook man waxuma ne yëf bi 98 milliards la de yëf bi 628 milliards waaw yëf bi 628 milliards la 500 milliards yoo xam ne moom mooy projet bi apportu état bu Sénégal di 128 milliards de TVA parce que bu la. bailleur di lebal da ngay indi yow it sa doole bopp état bu Sénégal doole boppam bi mu indi cent vingt huit milliards la jaare ko ci TVA donc joxew ko dañ ko jaarale ci TVA nee ñu mais li graw mooy ministère des finances yëgul loolu nee naa la ba à la date du mardi 7 mars 2022 le contrat de crédit n'a pas été validé par le ministère des finances man kay li may wax wax ju wér céng la ñoom kay ñëw bëgg werante mais man li ma wax wax ju leer la waaye léegi su fekkee ne li ma wax amul waaye juróom-ñaari milliards moo gën a tuuti 98 waaw naka la nit mën a wax ne jox nañu njortees nañu ne jox nañu nit juróom-ñaari milliards nga woo ko police man ma ne la ana suñu 98 milliards ngay na nak naka xaalis bi dina génn moo ni day génn